sëñ bi ne sëñ Bay Si Mansour ne ñu jàng Fatiha ak salaatul Fatiha ne su dee sëñ Pape Malick bi ne mu ñëw fekk mu toog jiitu ko fi nee na day fab lépp de teg si loxo nee na ndax moom mii di ko fi indi moo fi indi sëñ Pape Malick nee na moom it sabab yi ko indi moo ko indi ndax bàyyi buuna njaay nee na foofu rek la yem nee na moom mën naa wax si moom lu bari na nee na waaye daal mu yem kooku nee na taxam ne li sëñ Pam Malick wax moom la wax ñoo ko bokk nee na moom mii li sëñ Pam Malick wax su ko waxoon it Pam day noppi waaye nee na sëñ Abdou Aziz mii fi jógee ñun ñëpp la demal amiin sëñ bi ne yan na yàlla yërëm Abdou Aziz Ndiaye ne yan na ko yàlla xaare àjjana amiin ne lu ko ñaanal yan na ko yàlla nangu amiin ne yan na ko yàlla dugal si barzaq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amiin ne jaamu yaakaar rek la am bu yaakaaree na tàllal yàlla loxo nee na waaye dugal ci jaare si moom ñaan nga àgg nee na kon ñi ngi ñaan yan na ñaan gi àgg nee ñi ngi jaare ñëpp sëñ bi ne ñi ngi ziar ñëpp nee ñi ngi baalu àq ñëpp sëñ xanaa wax sëñ bi rek jàng faatiha wax sëñ bi rek li fi xew sëñ Abdou Xaar bi ñu ko joxee kàddu ca nijaay la jarbaat la ñii nooy nijaayam sëñ Abdourahman laa wax bi ñu ko joxee kàddu dafa ne sama kàddoo ngi ci kàddu Pape Malick man aw ma benn kàddu gu may wax sëriñ it dafa ne lépp lu ñu fi wax ci mbokk gi maxtaar mooy seen kilifa ñoom ñëpp mu ngi nii toog loolu rek lañ doon wax mbooloo mi nii loolu dal si moo fi xew sa gannaaw sëñ bi ne Thierno Bassirou Tall yónnee na fi ñu ngi ne kon daal ñu xam ne mbir mi mbirum ñëpp la nee na sëñ Tuubaa teew na fi Seydi Hadji Malick teew na Cheikh Hadji Omar teew na te nee na ñooñu nag ñooñu yaakaar nee yàlla bu yaakaar tas am nee ñi fi des nag leen fi yàlla bàyyi amin bàyyi leen fi si sago ak wér ak sutura ba mu yàgg lool amin ne ñu jàng fatiha salatul fatiha altine ci dix heures et demie altine si dix heures suba jàmm. mbokk mu ko mën. mbokk mu ko mën. nu daje kër Serigne Ndiaye nu daje almaami kër Serigne Ndiaye Bouna. wala nu koy ñaanale. wala nu